ñëpp nag nee na yéen ñëpp ay gani kese ngeen ne yal na leen dëkk bi jig yéen it ngeen jig waa dëkk bi eh, nee na lii moom nee na cant rek moo ci war nee ndax at wu ne nee na nii lañ koy defe nee te wax dëgg yàlla jël ngeen engagement bi eh, nee na ni ngeen ko daa defe rek nee yéen it ngeen engagé war ko defe noonu ne wax deug yalla amut len lum ci tek luddul rek di len sant di len gërem nee na fépp fu ngeen di tollu dal ne de len jokko ak seigne Moustapha sar mi nee na ci walu ñew bi ci bëss bi ne ci délégation yi nee na bu nguur gi way ay ministère nee na nañ ko da def rek nee na ngeen di jokkook ñoom di jokkoo ak si mussa saar mi nee na ba nga xam ne di ngeen mën a def benn convoi nee na ñëw nee na xeewlu dem cérémonie officielle nee waxtaan nee na woññeekuwaat nee na loolu yëpp mu ngi koy fetliwaat di ko teg seen loxo nee na li fi war yëpp it daal nee te daanaka service yi bu dul Senelec ñëpp teew nañ nee na yéen itam. nee na na ngeen góorgóorlu rek. nee na yombalal ko madame le gouverneur mi toog. nee na ak préfet ak sous préfet. nee na ngeen yombalal leen liggéey bi. nee bu ngeen ñibbee rek. nee na li ngeen jël engagement. lépp rek. nee na na nekk rek lu sax ci yéen rek. mbokk yi kon li mooy xibaar yi ñu fi di ko la ñëw lañ ko jottali di gërëm di sant mboolem seen équipe technique yi nga xam ñoo jàppale ci wàllu liggéey bi équipe rédaction bi rédaction bi ci wàllu xam dina ñëwaat ngoon ci tribune de la rédaction 18h30 salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.